sëy euh, muy day day diggante boo xam ne mm-hmm. ci nammeelu suñu boroom ci la ci la sosee euh, lépp loo xamante nii rek mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo tax ne àddina mm-hmm. gis nga maam aadama ak Awa la yàlla bind seen diggante ñoom ci euh, ginnaaw boo xamante nii sëy na ci la àddina bépp juddoo mm-hmm. tax nga dégg ñu naan doomu Adama kon sëy nekk loo xamante nii mom mo tax pinch am mom moy defar pinch, momit bare na lu yak ci pinch tamit ci sey lay kongi ko euh, ba tax na mag ñi xam guñ ko xamone mo taxone ñu joxone ko cër joxone ko gëdd bi nga xamanteni mom la waruna am ndax dan nga deg sax mag ñi daan wax non sey jaamu yalla la te it muy deug sey jaamu yalla la jaamu yàlla googu nekkoon ci sëy moom lañ daan jiital lu jiitu leneen di ci ñëw ndax gis nga léegi boo waxee ñu ne mbëggeel soo waxee ñu ne alal soo waxee ñu ne matériel yooyu yëpp mag ñi dañ ko daan féetale ginnaaw daaw ñu ko féetale ci kanam euh, nga gis mag ñi daan nan tànn sëy ci ñett Dan nan wax ne sey bi ci njëkk moy sey ci sa mbokk moy sa mbokk nday mbaa sa mbokk baay biko ñaarel ñu ne sey ci dëkk ju yàgg dëkk ju yàgg nga dem ba seeni jikko kenn ku ci nekk sa morom sa jikkoy morom doy la biko ñettel di bi nga xamanteni sey sëyu dox daje lay doon nga ak nit euh, yalla dogal ngir dencante ñu ne ñetti sëy yooyu mooy ñetti sëy yi nga xamante ni euh, moo amoon mag ñi daan wax ne bi ci gën mooy sëy yu bokk sa mbokku ndey mbaa sa mbokku mbaay wala sëy joo xamante ni dëkk ju yàgg la ngeen dem ba kenn ku ne sa jikkoy moroom day la muy ñetti sëy yi nga xamante ni mag ñi daan nan ko natt ci wàllu sëy sëy tamit mag ñi daan ko natt ci ñett dañ daan wax ne juddu la ñuy tak waye jikko la ñuy denc doog bëgg dan kau euh, waxtan wi nak dañ ko bëgg teunk ci ñett yoy muy juddu la ñuy tak tay dañuy waxtan ci juddu lan mo taxone mag ni dan tak juddu lan moo taxoon mag ñi fonkoon ab judd lan moo taxoon mag ñi joxoon cër ab judd lan moo taxoon mag ñi daan topp ab judd danga nga daan gis ku dëkk kajoor dem bawol denc fa soxna lu tax danga daan gis ku jóge saalum dem siin denc fa soxna nga gis ku jóge bawol dem siin denc fa soxna nga gis ku jóge waalo ñëw bawol denc fa soxna lan moko waral dañ dan top ab judd ndax judd dafa for judd dafa am doole te nit ku ne la nga namp mom ngay gal motax mag ñi danañ jël judd yoyu dan ko dan ko organiser bam nek ay patch so demee kadior ñu ne néegub géej mbaa ndéegub sey nga dem bol ñu ne mu yoy nga dem walo ñu ne negu logar nga dem sin wala saalum ñu ne la negu de gelwaar noonu ñu ko defé won ay neeg djublu wuñ ci won lu top ay juddu ngir juddu for gi nga xamne for nga ko ak doole gi nga xamne am na ko ci nekkinu doom adama ak ci ci taxawaayu nit ci kaw pénc moo tax juddu lan daan takk soo xoolee ni Sénégal bokke ni nu bokke nga xam ne waxkat ba daf ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ne Sénégal mën na noo xuloo mën na noo xeex waaye mënunoo xastante lu tax ni nu bokke mbokk gu rafet googu nga xamante ne bokk nañ ko mag ñi ñu ci jublu ci topp ab juddu juddu lan daan takk soo xoolee ci ni Sénégal bokkee ma jël ci rek ñaari maam muy Yacine Diasso ak Cheikh Diasso ñoom ñaar ñu bokk ndey ak baay Yacine Diasso nekk maami saa xeer Fatma Diop ma jël ci moom exemple texe Diasso nekk maami ma Matar Ndoumbe muy ñaari job yo xamanteni job job gi jobi kokke la job ji di jobi kadior nga gis job joju tay so ci jëlee exemple ci walu ni mag ñi daan takkee ci ab juddu jobi kadior joju mo wala ngan ba egsi ci dakaro di job gi nga xam ño fi daan falu serigne ndakaaru so demee kokki ci jobi ma matar dubbi joju job joju wala ngan na dugg ci bir bol dugg ci bir kadior saw ci rew mi liko waral moy mag ni juddu lan tan tak sa xer Fatma ku ne deg na juromi lingere yi ñu nan moy sen dafa jël isa jey am ci makhuraja Fatma kordu Samba ak jor ñu di juromi lingere yi nga xamanteni ni xolé tay ci rew mi ñu bari ñoo leen jur lu ko waral mag ñi dan lan daan takk soo xoolee fatma dañ ko jël jox ko maawo ngóone borom mbëggee mu ne mbëggee du mat ngor mat ndax gis nga mag ñi takk juddu da leen daan jaral dañ daan tànn te gis nga juróomi ngir yi ma lay wax ñoom ñoo tànn ki leen daan denc ngir wala ne lan daan takk ñoom ñoo tànn ñoom ñi jigéen ñoo tànn ñoo tànn ki doon seen dañu am bis ñu tok ba ci yag jor mi seen mag dal di and ak ñom ñu dem ci àll ba mu ne dama bëggoon ñu waxtaan dama bëggoon nu xol comme ñun tollu nañ ci sey te xaw na noo yeex sey ñu waxtaan kenn ku ci nekk xol ki nga bëgg ñu dem wax waxtaan ci suñu bay mu may mu mayanu bi ñu ci àll bi waxtaan ki nga xamne mom mo ci mag di Fatma daan ne man de tànn naa maawo ngone borom bëgge ki nga xamante ni moo di Codé Samba daal ne man de tànn naa Brak Limbaba ca waalo xoolal ki nekk Kajoor tànn ku nekk waalo nga xam ne kon juddu lan doon tàkk juddu lan doon de tàkk ki nga xamante ni moo di mooy xuraja daal ne man tànn naa jàmbor saale bi ki nga xamante moo di Aysata daal ne man tàmm naa tànn naa Serigne Moussa Penda Jaxate ca Aynumaan Jaxate ndeysaan joor bi nga xam ne mooy seen mag xam ne moom ki mu tànnoon ñii di ay rakam am na ku ko ci tànn mu ne man du ma dem kër ndax ki ma bëggoon tànnaale ngeen ko te duma ko wax nga gis ngor googu ndax su ko waxoon xëy na kii rakam moom it day bàyyi ñoom ñaar ñëpp ñu ñàkk xëy na sax waaye mu dëxal ko ci biir xolam bàyyi ko bàyyi rakam dem sa yëg kooku nga gis ne kon juddu lanu daan takk soo xoolee saa xeer Fatma moomu kenn ci ay doomam mu di Aminata Yella moom lañ jox Cheikhul Khadim moom ci sëriñ Modou Moustapha ak sëriñ Baara kon judd lan daan takk gis nga Aminata Yella moomu nga xamante ne nii saaxeer fan maa ko jur ndax saaxeer fan ma daa jël Yella Khoudia Kumba ci néegub seey am ci Aminata Yella ak Amadou Yella nga gis mag ñi nonu ñu daan toppee juddu diko diko diko tak kon amna lu xew ndax gis nga garab soko soko soko xasse njoy njoy lamuy genné du saf lu dut garab ga te gis nga njibrit mo gis lanu fa gajje so xam nga garabu ngeer soo ko gàjjee buy jibbiwaat ngeer rek a fay jibbi loolu taxoon ñu daan topp ab judd daan ko takk réew mi mépp mag ñi foo ci dem loolu mooy li nga xamante ni noonu la daan def daan waajal seen néegu sëy daan tànn fi nga xamante ni fa la mbaax ne fi nga xamante ni fa la ngor ne ci ab judd fa nga xamante ni fa la diina nekk ci ab juddu fa nga xamante nii foofu la jikk ju rafet nekk ci ab juddu fa lan daan tànn fa lan daan topp topp juddu di ko takk mu nekk loo xamante ni xam na ne la cay gongi koo ëllëg mooy mbaax xam na ne la cay gongi ëllëg mooy jikko ju rafet xam na ne la cay gongi koo ëllëg mooy li nga xamante ni ëllëg mooy ñëw taxaw pénc te su taxaw pénc pénc mi jag gis nga xadi janaab ak muus du jur gar gaynde doomi gaynde rek lay doon moo tax mag ñi daan tànn ak judd di ko takk bu defee alxames ak alarba bi di ñëw ñu duggaat ci beneen ponk xuusaat ci ba keroog ñuy jeexal ci sëyub démb wute gi mu wute ak sëyub tey ngir la ca daan gon ko doon loo xam ne tànneef la daan doon ba pénc mi doonoon pénc mu jàkk waaye la ciy juddoo su doonut lu jàkk pénc mi du jàkk

woykatu arab ba ne askan yi seen jikko ju rafet leen fa bàyyi bu seen jikko ju rafet demee dara desatu fa te jikko ju rafet ak yar ñu ngi koy waajale ci ab sëy ok man li ma bëggoon xam mooy que ñooñu xam nga ku nekk dafa tànn sa sa borom kër après ba nga ko tànnee est-ce que ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ki nga tànn moom nga mujjee sëyal waaw ku ci nekk ki nga tànn moom nga sëyal am ak moom njaboot te ah kenn ku ci nekk doom ya nga am ak ñoom dégg na leen ci réew mi jigéen ñi ñoo tànn jigéen ñi ñoo tànn ni góor wara a non la jigen wara a jigen day tànn borom keur ah, ah suñu génération bi garaaw na ci yaa ah, franchement. amna solo parce que dañu sétlo ni bay que. ngor gi amone demba dafa jeex tay jomb jomb bi daan am. Uh-huh. dafa jeex tay uh-huh. da nga nan sepp ñu mur le seuru dënk nga daan dem di sey sa yaay wala ñet yoon. khadi ni la khadi ni la khadi nga gessu sama nday luma wax. mu la bo wété na nga goré boo wéttalikoo nanga nga gore boo demee da ngay sax di togg xeer te kenn du ko xam ngay xiif di mar di naan te kenn du ko xam jël ngor wéttalikoo ko def ko sa àndandoo mm-hmm. mais nag dafa jeex tey mm-hmm. am amati na solo amati na solo amati na solo euh, mag ñi xamoon na ne daal mm-hmm. àddina daal mbaax ak jikko ju rafet mooy tax àddina jàkk moo tax ñu ko daan waajale ci bépp anam. Mhm. rawatina ci ñaari way dencante. foofu lañ ko daan waajalee. moo tax rek lu ca mosaan a juddu rek. doon loo xam ne tànneef lay doon. Mhm. ndax wal baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi izni rabbihi. Mhm. walladi xabusa laa yaxruju illa nakida suuf su baax daal te nu tocc ko ba mu saf. mu taw ca ndox mu bari te tooy. boo ca jiyee lu baax te muy tànneef. su saxee rek nga am gàncax gu rafet